gan gi euh, Abdou Sané moom mooy euh, coordonnateur communal PASTEF euh, Ziguinchor nekkoon itam député ci assemblée nationale ñu ngi lay nuyu monsieur Sané alors yow yaa kon doxal loolee di mbir yi parti APR ca commune bu Ziguinchor tey la def benn ayu bés gannaaw jàmmarloo yi amoon foofee diggante militant yi PASTEF ak yu Doudou Ka situation bi naka la fa demee voilà baax nañu leeral yeneen affaires yi Mm. nekkul loo moo am entre militant PASTEF ak militant APR dafa fekk simplement mu am ñoo xam ne dañu doon agressé Ousmane Sonko dañ ko doon agressé mooy li tubaab di wax agressé maanaam dañu toog ñu yéeg ni Ousmane Sonko am na fu mu nekk ñu bugg ko fekk foofu faagaagal ko te loolu lan moo ko indi dafa nekk loo xam ne nekkul lu bees. Mm. Ousmane Sonko bu mu commencé ñëw fii politique ba léegi ba mu indi ay idées réelles de rupture am na ñu mu dérangé ñu mu dérangé ba léegi yéenooñu ko dara lu dul tey suñ ko mënoon rey sax ñu rey ko jaaree nañu ko fu ne parce que am na loo xam ne moom moom dafa nekk lu diis ci yow ci man ci keneen ñun ñëpp kenn ku nekk ki nga gën a foog àdduna mooy sa yaay. fexe nañu ba yaayam mi nga xam ne jotewul dara ak ay affaire Pastef ci période bu ñu doon def simplement ay procédure électorale ñu dem bëgg ko harceler ci loo xam ne teguñu ko fenn mais loolu yëpp yëfu Macky Sall la jóge foofu ñu attaqué permanence bi nekk Yoff bu muy dem Fatick pour meeting ñu attaqué ko foofu léegi amul dara loo xam ne yéene nañ ko lu dul di yónni ay nit pour ñu mun ko atteindre pour ñu mun ko attaquer donc loolu moo am nekkul donc xeex moo am diggante ay militants mais dafa fekk ay militants la gars yi yebal pour ñu mun a agresser Ousmane Sonko. Mm. yéen am na xeex bu doon am dëgg-dëgg. xeex bu mhm. doon am dëgg-dëgg diggante ay militants Pastef ak yeneen militants. Mm. xam nga ni Pastef moo ëpp doole ba nga xam ne leneen la ñuy wax lu dul lii. fan nga teg ni Pastef moo ëpp doole loolu laa bëggoon leeral. fan nga teg ni Pastef moo ëpp doole. j'ai un choc. Ah. quand même. d'accord alors am na ñenn ci yéen euh, ñu jàpp ne Ousmane Sonko moom loolee am keroog ak yi ko jiitu projet d'assassinat lañ ko tuddee maanaam dañ koo bëgg a faat ba kanam loola ëppul loola itam nga gëm yow. mais fu muy ëppee fu muy ëppee fan lay ëppee mais attaques yi ñuy def loolu yëpp yëpp yëpp nit mënoon na ci dee fu ñu dem ba di jël paaka di jam nit garab di tuuru comme su doon Ousmane Sonko la ñu jekkoon moom la woon. foo xam ne ñu ngi attaqué ay auto toj vitrine yi yëpp bu doon Ousmane Sonko mu nekkoon ci biir auto kooku nit ki dee na li amoon ci siège yi ci permanence bi ci Fatick et un peu partout lynchage bi am un peu partout yëpp du dara lu du loolu donc pratiquement tey franchement bu dee am na koo xam ne moom la ñu gën a harcelé fii moom la ñu bëggee gën a agressé fii ci homme politique bi Sénégal amee indépendance ba léegi mooy Ousmane Sonko. léegi yéen gëm ngeen ne dañ ko bëgg a faat lan ngeen jël comme matukaay. lan la ñu jël. comme matukaay comme précaution mesure. non matukaay du ñun yemul ci ñun. Hmm. xam nga lan la ñun tey en tant que Pastef ñu ngi jéem mais du Pastef nekkatul finalement affaire Pastef dans le sens parti. Hmm. dafa am ñeneen ñoo xam ne nekkuñu Pastef ñooñu gën sax sawar. waa mais yéen ñi koy jege tey lan ngeen nar a def ndax lii bu dee da ngeen kaa gëm dina am lu mu soppi ci ci ngeen di doxalee ci wàllu sécurité non ñun suñu rôle de bouclier. Mm. de prévention ñu ngi koy def. mais dama ne tey Ousmane Sonko dafa nekk royukaar royukaay. Mm. ba nga xam patrimoine mondial la. te boo nekkee patrimoine mondial koo bokkul sax parti dina gis loo xam ne c'est pas normal mu jël sa part. chance boobu la Ousmane ko am tey. d'accord tey Ousmane Sonko ñi koy protégé. Mm. dépassé na laa la wax dépassé la sax. le cadre simplement de passer même ci biir militant APR yi. Hmm. dafa am foofu ñoo xam ne dañ ko fan dañ ko bëgg. ah oui parce que lan la idée yu muy véhiculer dafa nekk ay idée que nit ki bu fekkee ne li ngay wax ko teg ci benn benn dëgg. ñëpp lay ñëpp lay topp. Hmm. yi ba nga xam ne ñoom léegi complexe boobu la ñuy souffrir. wala ñu jéem a def ay effort pour comprendre pour élever débat bi ñoom ñu ngi ci ay complot yu ndaw yu complot yu ndaw complot yu ndaw. d'accord keroog lan lan moo amoon. Ousmane Sonko dafa dem Ziguinchor ñi nga xam ne ñoo yore économie bi mooy les membres de l'UNACOIS ñu gis ci ausman Sonko kë dafa am ay idées ñu teg yaakaar ci moom ñu bay tous les Ziguinchorois ne Ousmane Sonko ñun yow la ñu soxla pour pourtant am na ñeneen ñu leen jege foofu mais faalew ñu ñooñu ñu ne Ousmane Sonko am na lu ñu gis yow yaa ñu doy noonu la Ousmane Sonko ñëwee pour am daje ak ñoom pour may den ay idées ñu wekk xalaat pour lu mun a indi développement donc noonu la affaire bi demee ñu agressé ko. waaw léegi te man wóor na ma ni tey. Mhm. li gars yi doon doyee Ousmane Sonko su doon ñi nekkoon ci wetu siège yu UNACOIS yooyu. Mhm. amoon nañu idée yooyu do dañu leen doon tëb di dem ba ay HLM pour jëli foofu Ousmane Sonko donc boobu sax aveu de taille la pour dire encore une fois que. Ousmane Sonko du n'importe qui. léegi nag euh, am na benn ayubés bi fitna yooyu yeewoo gis nañu waa Pastef ni ñu ci taxawee woon di wax ne fa ñu jaaroon danañ fa jaaraat ak mbir yu ni mel est-ce que tey yëf yi dal na wala ba léegi euh, jàmmarloo mi ngi xeeñ. no Pastef ñun talluñu violence xam nga ñun lan la ñu tal. Hmm. xalaat pour développer le Sénégal xalaat pour développer l'Afrique loolu moo indi Pastef sax mu changer tuuti tour pour jël dimension Afrique. yàggul fii la ñu invité Ousmane Sonko pour mu dem à une réunion fii o au, au Togo et pourtant y a beaucoup d'hommes politiques lan moo indi Ousmane Sonko mi nga xam ne si le plus jeune c'est le dernier venu sur la scène politique lan moo indi ñu bàyyi ñëpp li jël Ousmane Sonko c'est parce que bu fekkente ne ñun Sénégal xamuñu valeur Ousmane Sonko africains yi xam ñu valeur Ousmane Sonko européens yi xam nañu valeur Sonko américains yi xam nañu valeur Sonko asiatique yi xam la ñu ban. kon Ziguinchor daal monsieur Sané international. waaw léegi Ousmane Sonko bëgg Sénégal patriotisme. Mhm. moo ko moo ko téye fii. mais bu fekkee te tey dafa nekkoon nit koo xam ne boppam rek lay xalaat. Ousmane Sonko xëjul Sénégal wax ma nag Afrique. waaw laaj bi moo nekkoon ndax Ziguinchor yëf yi dal na fa wala ba léegi fitna mi ngi fay xeeñ. non fitna mënul am parce que ki yore majorité Ziguinchor mooy Pastef. Hmm. te Pastef talul ay violence. d'accord Pastef développement la. kon daal yéen génn ngeen ci loola ko bu yàgg parce que parce que tant que Pastef lu mu opté loolu mooy am su fekkee Pastef dafa opté pour la paix paix bi hmm. mooy am. te Pastef de paix la. jàmm ngeen woote. d'accord léegi nag euh, investiture yi investiture yi tamit tàmbali nañu yëngal yenn parti ak coalition Ziguinchor foofu candidature yu bari ña ngi fay yëglu yéen naka ngeen nar a defee investiture yi foofa. Euh, gannaaw yaa ngi ci gox ba Ziguinchor mm. ñun dañu am benn problème xam nga lu tax. Mm. d'abord ñun Ziguinchor dañu am respect ci Ousmane Sonko ba nga xam ne respect boobu mooy indi lépp lu ñuy def dañ koy dañ koy dañ ci boole les sens de la responsabilité. Mm. donc ensuite Pastef Ziguinchor dafa am ñoo xam ne ñoom la bokkal pour ànd dem ci liste bi yàlla def bu nekk ay homme de valeur ay homme de qualité donc suñu partenaires yooyu ak Pastef. ñun ñooy bokk dans le cadre de yeewu askan wi ñun bokk discussion wax lu ñuy wax def lu ñuy def bu heure bi jotee ñu liggéey lu ñuy liggéey gaje dem suñu yoon ci jàmm ak salaam. Mhm. nekkoon nga député ci assemblée national assemblée national booba tey la bureau di dajee ngir euh, waxtaanee mbiram euh, yëkkati mbalaanu kii laay ñaari député yi ñu tudd ci euh, passeport diplomatique yu ñu doon trafiqué yow ndax jàpp nga ni yëf yi dafa yéex wala ba tey ñu ngi ci délai normal yi gannaaw nekkoon nga député xam nga ni yëf yi doxee foofa. wax ma yëf yi dafa yeex mais woor na ma ni affaire bi du sotti du dem. ah oui lu a loolu bi affaire bi amee ba léegi déggoo ci président prononcé wu déggoo ci benn membre du gouvernement prononcé wu. ah nee nañ dañuy bàyyi enquête bi dox ministre de la des affaires étrangères loolu la wax. pour séparation des pouvoirs ministre des affaires étrangères. Hmm. bu mu waxee ñi ko weddi. ñi ko hmm. weddi ci biir parti am la ñu nekk. donc nekkul affaire Pastef ci biir parti yaa xam mbay moo ko weddi. te weddi bu ko weddi dafa fekk man déjà ma weddi ko ci même idée ñu bëri weddi ko xam nga lan moo am bi am. Hmm. ñoom la ñu toog ñu rendre compte carrément que jëm seen refi seen régime dafa nekk régime mafieux ci mafia la ñu nekk kii di trafiquer billet de banque kii di trafiquer passeport diplomatique ñële di détourner of nag leen jàpp mu am ko ci teg loo kut donc mafia boobu ñoom ñoo toog ñu gis carrément ni bu ñu béyee problème passeport diplomatique bi de enquête bi jaar fu mu war a jaar. ay mbóot yu bëri ñuy gën bu boobaa régime bi dafay daanoo ci suuf. Mhm. mais bu ñu gisee loolu comme ñoom ñëpp muy pouvoir euh, exécutif législatif ak judiciaire dañu complice ñoom ñoo déggoo seen biir pour que ministre de la justice fu mu waroon gaaw mu yéex pour que assemblée bu mun a am prétexte pour justifier aussi retard bu mu doon def mais ab absence de volonté moo am beneen bi mooy lan lan moo ko war a wone am na koo xam ne moom ci flagrant délit la ñu ko jàppoon mooy Bougazelli muy def trafic de faux billets nga xam ne loolu lu garaaw la ñu jàpp ko tax nañu ba tey mi ngi këram non seulement mi ngi këram mais mu am autorisation mu am pouvoir di tuumal ay gendarme dina gendarme yooyu dañu ko jéem a corrompre te xam nga ni gendarme yi dañu nekk ay agent assermenté doo leen tuubal noonu ci nen tey su doon Guy Marius Sagna moo tuubaloon gendarme yooyu tëjoon nañu ko parce que Guy Marius Sagna poste bu ndaw la bind pour wax lu muy wax rek ñu naan ko lii ak lii ñu arrêté ko këri nga xam ne ñu ngi nii di tuumal déggoo ci benn procureur déggoo ci benn justice donc cela veut dire que la preuve est là comme quoi fii gars yi parewuñu pour jaarale yëf fii ci yoon te loolu am na loo xam ne baaxul parce que bu fekkente ne léegi citoyen yëpp dem nañu ba gëmatuñu seen justice baaxul ci dëkk bi baaxul ci stabilité dëkk bi hmm. assemblée nationale est-ce que amoon na pouvoir u sanctionner député yi balaa même justice di ci euh, wax wala di leen ci topp non assemblée du tribunal donc assemblée am na lu mu mën a def léegi lu mu waroon def pouvoir judiciaire moo nekk complice bi moo yéexal affaire bi pour mu mën a ñëw c'est-à-dire que waa assemblée lu ñu wax c'est clair hmm. ñu ne on attend d'être saisi par la justice léegi justice boobu ñoo tegi tànk ci affaire yi te ñoom sax seen tegi tànk boobu du seen coobare cest que président de la république ci boppam nga xam ne mooy pouvoir exécutif te yàgg na wax ni moom am nay dossier daf ci teg moom ci boppam mooy mooy décider lu mu décider wu nga duñ ko def parce que moom mooy chef suprême de la magistrature moom mooy chef aussi suprême moom mooy chef exécutif donc moom ci boppam tant que libéral ministère de la justice kooku du ko def léegi le reste c'est du cinéma boo wax ñu ne non ci procédure ci procédure mais ñëpp xam nañu ni absence de volonté la donc parewuñu pour que dossier bi mën a dem léegi ñu defe ne gën a buus nit ñi alors que ñun si yàgg nañu xam problème yi bu mu yàgg xoolal Guy nu mu porté affaire bi ak bi nu mu gaaw ba ba ñu jugé ko ba ñu ne li sursis la tout et tout et tout et tout te su doon Ousmane Sonko moo loolu fekk affaire mm. moo tax ma ne la dëkk bi bi ngi bëgg a te mérité ñu ko mais ñe loolu yëpp lan moo ko waral c'est parce que Macky Sall dafa échoué dans le cadre du développement. mu hmm. wóor ko ni léegi moom il est dans son man mandat xanaa waroon na mën a am yéene bu baax boo xam ne nekkul Sénégal bu tas la fiy béy mais tey dafa mel ni moom dafa bëgg dem te dafa war a dem parce que man la mandaam dafa jeex. mu bëgg a Sénégal. Hmm. loolu nag mooy yëfu soxor. ndax na Abdou Sané ñu ngi lay gërëm euh, yow yaay coordonnateur communal PASTEF Ziguinchor nekkoon nga itam député ci assemblée nationale amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey jërëjëf. jëf